xam nga xam nga lan lan moo am. solo vrai li nga wax. cooptation ñoo ko bañoon. ci doucement rek. ñoo ko bañoon ci kan. cooptation bi bi doon njëkk a am parachutage la c'était pas nous ñu doon ñoo doon coopté c'est extrêmement important ministère moo daan copte balancé ñu ko. mais loolu la ñu wax du loolu amaatul. ñun ñoo manqué suñu biir. copter des personnes ressources ay profil lañ copter. waaw léegi mais est-ce que ça justifie est-ce que bon. ça justifie tout. Ah, ça justifie tout. ah d'accord très bien on est 31 élus. waaw léegi gis nañ. Eh, xam nga yaa ngi les textes les textes non déglu ma les textes de la les textes de la fédération ne reconnaissent pas les coptés. waaw texte de la fédération. un membre xam nga un membre. c'est l'assemblée qui est souveraine. assemblée bi nga adopté. Ah, benn assemblée adopté wu ko. assemblée adopté wu ko. Ah, ah, maa ngi woon xam nga fan lañ ko adopté. xam nga fan lañ ko adopté. kay ma wala fan lañ ko adopté. xam nga Edem ma ne xam nga kan lañ ko adopté. xam ko adopté. c'est pas vrai. Odem xam nga kan lañ ko adopté. jour bi ñuy wax non jour bi ñuy wax ne. Eden Rock maa ngi toog. c'est maa ngi toog. c'est faux c'est à l'assemblée générale Eden Rock eh, la ñu toogee ne on va prendre huit cocktails. les photos sont là je te les montre. Thiané j'étais présent. on a donné mandat au comité d'urgence dans l'assemblée mais en attendant très bien waaw très bien. c'est ça qui s'est passé. voilà maintenant euh, Thiané j'aimerais poser. raconte des histoires je vous jure ah raconte des bobards mon gars. non raconte des bobards. mais c'est pas ah, non mais non mais ça s'est passé ensemble. xam nga yaa yaa non yaa ngi koy. non s'il te plaît gars yi gars yi ñu ñu. est-ce que tu n'étais pas non moi j'ai été élu à l'Assemblée. moi j'étais à Eden Rock. quand on a parlé de ça tu n'étais pas à Eden Rock xanaa kon. et moi j'ai posé le problème. non moi j'ai c'est ce jour-là qu'on en a et ce jour-là moi-même j'ai intervenu pour le dire à vous yéen yéen doon bañ affaire u copté ngeen fii ne da ngeen di jël ay copté c'est ce jour-là qu'on en a et c'est ce jour-là que les gens ont accepté les coptés c'est ce jour-là bi ma leen di wax loolu moi-même j'ai dit il y a des coptés ah on vous dit que le nombre est pléthorique nga ni d'accord aussi bon ça c'est votre avis